rappeur bi di Souleymane Ndiaye ñu gën koo xam ci Julio l'absolu daal nañ koy convoqué ci division des investigations criminelles placé ko en garde à vue li ko waral nag du lenn lu dul ab way boo xam nag tudde woon na ko tarixa defoon ko ci atum 2020 benn at ak ñetti weer ginnaaw nii wax ak yéen way boobu nag doon na def rek promotion li nga xam ne moom mooy julit yi fii ci Sénégal ñu publié ko woon nag ci contexte boo xam ne bari woon na lool ay polémique ci télé yi wala sax ñi nga xam ne dañuy def rek concurrence ci nga xam ne moo nekkoon ci weerum koor googule ak ñuy wax tamit ci source bi ba léegi rek ne am na it ay nit yoo xam ne lu baax taxu leen a jóg ko am ay extrait yoo xam ne dagg nañ ko dugal ko ci internet bi looloo tax nag dig daal di woo ki nga xam ne moom mooy rapport bi di basé wu rek ci yooyu ne extrait ginnaaw ba ñu ko xoolee ba pare wàllum confrérie di tarixa noonu na nekk chemin boo xam ne dafay rek wane njub ak li nga xam ne moom mooy eh, jubal te waxoon na ni Cheikh Ahmadou ba ak Alaaji Malick Si ah, dañoo bàyyil héritage bu am doole kenn duñu ko yàqal te it dañoo xam ne ñun musulman yi ñun benn communauté rek lañu te yàlla rek lañu yaakaar kon ci jamono ji ñu wax ak yéen ki nga xam ne mooy Julio Lapsody ñu gën koo xam ci Souleymane ma nga ci loxo takk der yi